ko kese ko d'accord voilà bokk fii nañ fii si école bokk d'accord nañ mais ñun employé école bi lañ plus que yéen ñun ISEC moo mën a wax ak ñun ay autorité ga ga ga moo waroon a ñëw wax ñun wala kenn mais ñun fii la ñuy liggéey dañuy ñëw di ñaxtu loo xam ne ñoo ko moom ah dañ ñëw di ñaxtu loo xam ne ñun ñoo ko moom xam nga dugg ñu ci biir enceinte école bi te amoon nañ droit boobu tamit da ngeen yàq lépp li ñu waxante woon da ngeen ko doon yàq lépp dugg nañ ci enceinte école bi ne ko dugg ci enceinte école bi te ñun fii la ñuy liggéeyee donc y a pas directeur ñëwul

nervi yi lu nekk lañ fi jéem a def mais ñun duñu leen wuyu si provocation ndax nekkuñu fe nekkuñu pour loolu lu mu ndaw ndaw am na étudiants yu jaar suñuy loxo ñu yàgg leen encadré donc ñun tey ñoo dañ leen di won ba un bon exemple si ñi ñu doon gis démb moom la gis ba tey ñun ñi nga xam ne ñooy liggéeyee ci ISEC depuis ay at dañoo xëy di réclamer tey li nga xamante ni toll na ci fan weeri million ci xaalis yoo xamante ni Mamadou Diop daf ñu ko ameel mu tollu si juróom-ñetti weer ba fukki weer ak juróom yoo xam ne jotuñu suñuy salaire te loolu li ko waral mooy dafa xëy arrêté di ñu fay du amoon na nag ay waxtaan yu séqoon ak moom pour mu fay ñu ñu dem ba jëmmi jamono mu dugg ci tegu yoon teg ko loxo ñu toog di ko déglu ci déglu boobu toog nañ ba benn jamono ñu ne ko lettre bind ko ko ñu ko ko bind le jeudi 11 juin ni ko ah sunu salaire yi ñu toog ay weer jotuñu ko de moom lañ bëggoon nga wax ñu ci dara ba ñu toogee ñetti fan yi yàlla tontuwul waxuñu dara ñu bindaat ko jox ko avocat mu joxaat ko ko waxul dara ñu bindaat ko jox ko sunu avocat ndax boobu dañoo wut avocat jox ko avocat bu avocat bi nekk di traité waaye waxul dara ba mu génnee nag ba léegi ñu jëm si ñu ko jege wax ak ñoom ni leen seen kii da daf ñoo ameel lu tollu juróom-ñetti weer moo si gën a ndaw ba fukki weer ak juróom lu mu toll si ay millions yu bari léegi nag ñoo bëggoon ñu toog a waxtaan ak moom wax ñu kañ la fay mu gër si dëkk bi ne moom du ñu fay dara amee lu ñu tus duñ ko du ñu fay tey du ñu fay suba léegi nag loolu moom la génn tey di ko ñaxtu te dañoo bëgg Mamadou Diop mu fay ñu sunu xaalis parce que dañ koo liggéey ay weer lu nekk nag mi ngi koy wër di wax li ñu bëgg nag mooy amul waxtaan amatul def dara li ñuy xaar ci moom mooy mu fay ñu xaalis te danañu fay sunu xaalis incha allahu rabbi lépp lu ñu yoon may nag danañ ko def bëggoon nañ ko yóbbu si yoon mais tribunal dafa nekk ci ay grève moo tax looloo tax ba tey yoon demaguñ ci mais danañ ko yóbbu si yoon mu fay ñu sunu xaalis waxtaan nag amatul wala bu waxtaan di am condition waxtaan boobu ñun ñoo koy tëral ñu nii ak nii nga ñuy fayee moom nag nee na dawu ci dara bañu ci dara ah fële la alhamdu ku la ameel bor ndeke mo mënul bañ dara ci lim la amel yaakaaruma yow miñ ko amel di nga am lo ci bañ wala di nga am lo ci ragal donc ñi ngi koy ñi ngi wax ñepp nak muy opinion national international ne xuloowuñu xeexuñu saagawuñu defuñu lu bon waxuñu ko lu bon mom nak mi ngi wër ci dekk wax lu ko neex lu ko neex na ko ne diko wax mais liñ koy xamal moy suñu xaaj danañu ko fay te état japp na ne le 1er septembre école dañu reprendre ci enseignement supérieur buñu fayul ISEG moom du bokk si ñuy reprendre te loolu ñu ngi si jël à témoin le président de la République monsieur Macky Sall di jël ministre de l' enseignement supérieur ah monsieur Anne di jël autorité yëpp à témoin ci affaire boobu suñu fayu du ak ISEG. mais moom amul droit tamit ba daat c'est toi tu mën koo tere bu fekkee ne yow li mooy sa liggéey loolu mooy sa da nga jël sa kër mais fii mënoo fee nekk kenn du la fi soit très clair. xoolal bagage bi dara. suñu yoon nekk très clair. et après. Amadou. waaw fekk na yaa fekk na yaa fekk na yaa seen chef. Amadou c'est bon. Ay responsable yi la ñuy ñëwee fan yii nii. waaw à la suite ñoom ñoo indi seen kii d'ailleurs dañu bëgg ci saal jël ay taabu toog gars yi si maa ngi toog. waaw mën nga ko def vérifier. waaw yéen ñu sam ko doon question je ne sais pas. la vérité aujourd'hui à l'heure par exemple les banques de